voilà benn euh, fi nga xamante ni itam moo fi la ñu nekk ci la ñuy wax ba tey muy ci diwaanu Kër Massar Kër Massar nag insécurité nekk mbir moo xamante ni euh, day wëy di fi am. Euh, surtout ki nga xamante ne moom moo di Mariama Sagna fii lañ ko boomee woon euh, bientôt un an am na benn ndaw boo xamante ni ci benn sumb sax fi lañ ko faatee woon ba sax euh, am ay ndaw yoo xamante ni ñoom itam dañ leen cee jiñ ni ñoom ñoo kër monsieur le maire bañ jotoon leen ci denc te ñooñu ba léegi daanaka libéré guñ leen ndax Kër Massar suñu yitte ñoom it pare nañu pour dox ay jéego ngir mën a taxawu waaw sëñ Cheikh problème bi nga soulevé sànq mu doon ay ndaw yu nga xamante ni Kër Massar lañ dëkk. jafé jafé am fi ñu am ay ndaw yi nga xamne dañ leen japp ndax nenañ leen ñom ñoo doon yak ay keuru jambour lolu ñun duñu mësa taxaw di rafetlu ay ay violence ak affaire yoy mais dafa doon lu nga xamanteni bu amé ndaw ñoo ñu buñ leen jappé ba légui kenn atté wu leen xamuñu ñoo def xamuñu defuñu ñun xamuñu ku def ak ku deful waaye ku ñu munti jàpp droit la bu nga xamante ni tey manes naa am ñooñu noonu ay innocent yi nga xam ne téye nañ leen boobu ba léegi seen i yàqu nañ seen i njaboot ñoom ñoom lañ yaakaaroon ak yooyu dafa jot nguur gi ñu ci dossier boobu te luñ ci jot xam am na ñu nga xamante ni tuddoon nañ leen ci dossier bi mais ñenn ñi génn nañu réew mi am na ñu nga xamante ni benn parti bu nga xam ne ñenn ñi nee nañ ñoom ñoo defaroon këyit bi nga xamante ni moo permettre ñoo ñu def sumb bi loolu daal di am ñooñu am fi ñu féete dégg nañ ni ñenn ñi nekkatuñ ci réew mi am naag amul dañoo jàpp ni dafa jot ndax ay ndaw waa Kër Massar la suñuy frère lañu. dañ leen war a taxawoo ak lu munti xew dañ leen war a taxawoo waaye taxawoo leen si dëgg maanam si dëgg bi luñ ciy ñaan mooy autorité yi nga xamante ni ñu ngi fii nañu attee ñu xam dëgg bi fan la féete bu dee ñoom ñoo tooñ ñu teg leen daan li ñu leen war a teg bu dee tooñu ñu ñu bàyyi leen ñu ñibbi seen njaboot parce que at yaa ngi dem seen avenir mu ngi hypothéqué wu te mën naa am am nañu yaakaar ni mënees naa am si ñoom ñu nga xamante ni laalewuñu ci mbir mi kon nag attee leen dafa jot ñoom ak ñëpp ñu nga xamante ni ñu ngi ci biir kaso yi nga xamante ni léeg-léeg ñu jàpp nit si kaso bi foofu ñu yàgg fi eh, ñu ngi ñaan nguur gi daal ñu jàpp si lool suñu ndaw ndaw yooyu nga xamante ni eh, problème boobu amoon na biir Kër masaar ay ndaw Kër masaar bek ñu kaso mujjee ci am ñu jàpp si ñenn ñi nañ leen atte gaaw ñu xam la ñuy féete en tout cas ñun Kër Massar suñu yitte ñoo ngi eh, jaalewaat encore ñi nga xamante ni famille bi nga xamante ni ñàkkoon nañ doom waaye ñu ngi aussi témoigner suñu solidarité si ñi nga xamante ni jàpp nañ leen par rapport à ça jusqu'à ce que ba justice am ndax tant justice justice amul rek comme ni ñuy wax présomption d'innocence la on considère que ñooñu ay innocent lañ li ñu wax rek lañ mun a jàpp kon nañu nguur gi dimbali procès bi yàgg na euh, famille yi sont en détresse ay jafe-jafe yu nga xamante ni ñenn ñi am nañ ay soxna ak yooyu nañ ci jóg ngalawaay ñu dimbale leen ñoom ñu xam euh, fan la problème yi nar a ak ñoom fu ñu war a mujj